góor ñu tëj ma mu dawale ko indi ko Amérique gii indi ko fii ci Washington dénk ko Baba Aydara xale ba tën a Baba Aydara changé na turam Rosaline la tudd tey ngeen dégg ka lay laay la laa tey laa leen di woon doomu maam Matar Gueye yu bees yi xale ba soppi na boppam nee na gëmul yàlla gëmul yonent bi du chrétien du jullit ay maam Matar Gueye eh leen ma ko waayi ji nga xam ne yaa ko rëccale indi ko Amérique foog ne fii lay baaxee waaye fii la gën yàqoo tudde boppam Rosaline Rosaline la doomu Mame Matar Gueye bi tudd Fatou Bintou 17 yàq boppam diggu Amérique fii lay jeexee fii la ko xale yu góor yi di pamti pamtee ba mu naaw ndax xale bi daa teel a bëgg góor xale bi daa teel a yàqu baayam mom ceeg faral ko ci di tëj doomu jàmbur yi di jàpp doomu jàmbur yi tëj wax mu porté plainte ko et Mame porte plainte sa doom ji nga xam ne yàq na boppam xoola mini ba mu sol nee na gëmul yàlla gëmul yonante bi nee na du jullit du catholique bokk na ci secte yu mag yi ndax yow baayam ci ay secte nga bokk Mame Matar tey ngay dégg loo xam ne tey laa lay wax ba nga nekkee góor jigéen tey laa lay wax sa doom ju góor ji amoon 19 ans lan moo ko rey Mame tey la sinaab di yëngu sa doom ju góor xada boppam xoola mi ni ba mu sol nee na gëmul yàlla gëmul yonante bi nee na du jullit du catholique bokk ci secte yu mag yi ndax yow baayam ci ay secte nga bokk maam Matar tey ngay dégg loo xam ne tey laa lay wax ba nga nekkee góor jigéen tey laa lay wax sa doom ju góor ji amoon dix-neuf ans lan moo ko rey maam tey la sinaab di yëngu sa doom ju góor ji nga xam ne yaa ko boole góor jigéen ñu wàllu ko feebar à l'âge de dix-neuf ans Mbaye Diop Sali Gueye xale bu ndaw innocent nga yóbbu ko inda santé boole ko góor jigéen yi eh, damaa bëgg ku ne jël kaasu ndox toog maam ma Gueye du dama la seetaan léegi ci télé bi man sama yoon newu ci. dama ne sama yoon newu ci jël leen góor jigéen ya nekk Sénégal yëpp ngeen tanzim leen jël leen góor jigéen yi nekk Sénégal yëpp ngeen miss misuwi leen miss wi cin sama ngañ newu ci. man xeexaluma benn góor jigéen sama yoon newul ci góor jigéen kuy góor jigéen ci Sénégal ku dul góor jigéen Sénégal yéen a xam luy góor jigéen yéen senegale yi yéen a bëgg waxi góor jigéen yéen a jël góor jigéen yi teg leen ci kaw